مختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر الوسير مختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر الوسير مختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر الوسير محتار لي بلا مسيري ولا اللحين لسواي مدبرا بما على الدار يدوم دبرا عاد واجه المكاره ليا باق حبا بذكره وهو ليا عنه رضيت فهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراضي به شيطانا من طيب الممر والأوطان فر لغير جهة المحين يسوقه لغيرنا المحين هديتي من الإله والنبي كليتي صفا وصفط بي توفيقها إن قاده الإلهام هذا بدايا لما لهم بهام بدت لي اليوم برب الغيب أعاذني ممن قلوا وخيبوا لا يتواجه لنحوي مرعب عني محد مكاره وتغب سعادتي بغير محو كتبت وكوني الأبد القديم قد ثبت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 warahmatullahi wa taala wabarakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen sunum nuyoo ñu jël sunum nuyoo du ko teg si moom bu ko defee dina mën matale ci mboolem nuyoo bi yépp ak sëriñ xaadim mbàkke ibnu sëriñ muhammad ibnu sëriñ muhammadul amin baara ibnu borom tuuba mbooleem kilifa yi fi teew yëpp sëñ Abdou Lahad moom sëñ Abdou Karim ibnu sëñ Abdou Aziz Bàkke di ziar baax sëñ Murtada ibnu sëriñ Abdourahim ibnu sëriñ Mohamed ibnu sëriñ Mohamed al Amin ibnu borom Touba mel ne kàddu gi nga xam si nii dañ ko yëkkati te xeebu ci lool te néew ci lool te lool ci lool waaye dafa fekk ndigal moom bu jugee rek jëfee ko rek loolu rek moo waral kàddu gi kàddu gi yi nga xam si nii moom la ñuy waxee liñ siy jiital mooy dañuy wax rek jërëjëfe borom daarul moxti jërëjëfe borom daarul moxti jërëjëfe borom daarul moxti jërëjëfe borom daarul moxti jërëjëfe borom daarul moxti jërëjëfe borom daarul moxti ndax kàddu gi dafa jóge suñ kilifa sëriñ Saalihu Géey moom sëñ Abbas Mbàkke moom borom daarul moxti nga si ni yoonu borom tuuba yi nga xam si ni si nekk di si góor góorlu di si jéemante lépp si seen Saliou Guèye moom la jaaree nga xam ni moo nu nàmmat ci ëttub sëriñ Abbas Mbàkke kon noo koy sant bu baax a baax sëriñ Youssou Lo mii di jënn jëmm joo xam si ni képp koo ko xam xam ni liggéey bi sëriñ Tuubaa rek ci la ne loolu moom ku ne xam na ko bu baax a baax loolu moom nekkul sax lu ñuy jeex ak lu ñuy làmbantu man moom du ma waxantu képp koo ko xam rek xam ne si liggéey borom Tuubaa rek la nekk te bis bi yi nga xam si ni moom lay defal sëriñ Mouhamadul Amin mu nekk bis bu màgg bis bu rëy nga xam année yëpp da koy taxawee di ko defal sëriñ Mouhamadul Amin waaye mu mate ko lool ndax sëñ baara moom da lépp yoon wi kon sëñ Saliou Guèye moomu loon yor kàddoom mu yabal ak délégation bi Touba Rita Diop kii ma fekkoon ni sama wet mooy ma Kumba Guèye ñu gën koo xam ci Kàbbu Guèye mooy taawu Saliou Guèye ñu ànd ak magam bu ne taaw nag xam nga góor moom mooy taxaw taxawaay kilifa bi rek loolu moo waral waaye magam ki xam si ni mooy soxna Réy Guèye tamit mu ngi si mbooloo mi ak sun yaay màggat jóob mi nga xam si ni moom mooy seen wéy ak ay gorom ak mboolem daayira mafatixal bisri borom daaru waye daayira mu nawirul bunyan sidi amin ñepp ñoo andando waye tamit daayira ansar nga xam ni moy jitu daayira yi ñom ñepp ñi ngi fi suñu jëwriñ abdullah abdoulahaat jaw mi ngi ci jotaay bi ko ko xam ku nek xam ko si yoonu sëriñ touba dañ koy ñaanal suñu borom gëna yagal taxawayam borom daaru jili sek moom tamit ku ko xam bu baax xam ko si xasida yi tamit ànd na ak ñun ak mboolem ahlu tuubaarite yëpp ndax tuubaarite moom eur boo fa demee rek la nga fay fekk mooy liggéeyu borom tubaay mooy si xasida yi si loolu rek la nekk sëñ Moustapha Saliou ak ñëpp ñu ngi fi rek ndax buñ bëggee lim rek mën nañoo jum waaye mbokki jànkatu xasida yi ñoom ñëpp ñu ngi fi te yuusu tamit bis bi heure bu dikkee rek maanaam tolluwaayam ci nga xam si ni Touba saa su nekk rek dana ko joxe cër bu mat sëkk boo xam ñëpp dañ koy rafet bi may ñëw rek la ma imaam naan ma boo demee sëriñ Yuusu nag ma ko nuyul bu baax te santal ma ko nga xam ne fi mu toll rek moo tax ak siwul waaye xolam ak yéenam ak yëpp mi ngi fi bu baax a baax a baax a baax daaw tamit mi ngi ko tuddee woon Baye Ndongo Diop kon Yuusu moom cëram ci Touba moom ku ne xam na ko baax kon sëñ Saliou géey mi nga xam si ni moom moo na fi yebal ñu xam si teewaay bi ñu teew moom moo ko waroon a teew yàlla dafa dogal ni mu jox ñu ndigal ni ñu teewal ko rek nga xam ni yaramam tey moo am fu mu toll moo tax mu ñëwul waaye ñu sàkk ngeen ñaanal ko bu baax a baax rek suñu borom dëpp ko kàttan te defal ko mboolem jullit ñëpp rek si barke borom Touba kon noo ngi sant sëriñ Yuusu baax a baax a baax ndax sant gi nga ko bëgg a sant ñu ngi koy tudd suñu làmmiñ waaye da siy lot ndax suñu xol dafa fees lool ci moom ñu fi teew ñëpp tamit nañ ko tamit ci taxawaayam si liggéey borom Touba non kay ñaanal yalla suñu borom guddal fanam defal ko ay waajuram defal ko mbolum julit tay ñaan kep ko xam ci ni yaa ngi si jotaay bi rek lepp lo bëgg rek yalla la ko sëriñ bi defal ci barkeb borom Touba kon ñoo ngi tuub bu baaxa baaxa baax lu dëng ci kàddu gi nañ ko waxe woon sa njëlbeen gën ñun ñiko yor rek ñoko ko matewu waaye lu ci jub rek ñu santé fa yalla suñu borom fa tubaarakàlla jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ abdullah ngay tabarakallah ok ñu ngi saaral ji lepp mat na sëkk wax ji tamit tubaarkàll ndax ndaw lu ne darajee ko ko yónn rek lay lay taxawee te Baye Saliou ku bëgg xasaay la bëgg sëriñ bi lool macha allah ñu ngi siyaare bu baax kilifa jotaay bi sëñ Mahmoudane Mbacke ko jox wàcc waayam di ko ñaanal sama guddal fanam te wér ay cëram ba yéenam ci lislaam mu mottali ko ci daraja Cheikh Ahmadou Bamba ndax kenn ku ne xam na ni amut jot waaye yitte yëpp yittey lislaam la yitte bi dox lépp lislaam la yàlla dogal sëñ Yuusu mi yàlla dogal mu yees yeeslu si moom mu ab sëriñam sëñ Yuusu am yéene mu teew ci bis bi waaye sëñ Yuusu nee na moom moo ko waxee sëriñ bi rek doy na sëkk bu teewul woon te def ñaan gi sax mu doy sëkk ndax xam na ay yitteem fi tool toll waaye sëriñ bi moo mën xam dara am na ne xat na lool ci moom te guddi na mu ñëw rek di ko sagal ngir sëriñ Tuubaa kon sëriñ bi loolu ñun ñëpp bég nañ ci suñu xol sedd na ci mboolem ko yëkkati xasaay ci dëkk bi xolam sedd na sëñ Yuusu li nga ko defal ñaan sa borom guddal fan te wéral cër yi siyaare sëñ Leyti Touré mi nga àndal sëñ Lamin Cuun ba ba waroon a def waxtaan wi moom tamit toog am nag dal rek te tey jii waa daayira jeewal moo leen def waxtaanu fecc màkkaan bi moom fa jógee rek la daal di ñëw fii sëñ yu si defoon ko ci carte yi waaye boobu léegi mu toog soo ñëwut sëñ Lamine ñu ngi lay sant lool bu baax a baax bi si jàngkatu xasaayit moom faaw mu déwér doon yi loolu rek moo ko waral ñu ngi la koy jégalu bu baax a baax sëriñ bi damaa xamul fii tey toll moo tax mu ko ci baas bi guddi na fexe jox kàddu gi mu soñ ñaanal ñu bu ko defee ñu mën a àggal liggéey bi incha allahu rabbi bu defee ñu taataan kàddu yi rek sëriñ bi soñ ñu ñaanal ko defee ñu ci waxtaan wi ñu àggale njàng mi yoo mën kon ñu jox sëriñ bi kàddu gi ñu ñëpp teewlu te taataan kàddu yi bisimilah mbokk yi Serigne Mahmoudan Mbacke ibn Cheikh Amadou Murtada moo leen di nuyu ñu nuyu lislaam bi gën a tëdd asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu. Serigne bi nee na mi ngi nuyu mbokk yi bi nee na mi ngi jël yoom di ko teg ci loxol Serigne Youssou mi nga xamante ni moo waral bés ak seen baara ñu dégg ñu tudd leen fi sëñ Mouhamadou Mbacke nee na mi ngi leen di ziare ñoom ñëpp sëñ Mouhamadou Mbacke nee na mi ngi ziare jànkatu xasida yi ñu fi fekk nee daanaka bis bi seen bis la xewu taximaan dana bari ay dawalkat nee na xewu jànkatu xasaay bi dana bari ay jànkat yaakaar na Tam böyle böyle. njàng moom solo mu war na fii ci sëñ bi nee na gaa yi fi teew day jàng moom njàng moom seeni mbir la te yéwén سرير ومن أي جهة nee na ñoom ñooy jot li mbind mbindum sëriñ bi nee na sëriñ bi mbindam mi nga xamante ni da ko tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngatu xasida yi ñoo koy jottali sëriñ bi nee na kon sëñ Mahmoudan nee na di jot li mu ñoom sëriñ mu tagg yonent bi nee na loolu lu tuuti sëñ mi ngi di siyaare bu baax a baax ñaan gi ci ko suñ borom di jox dafa ne xat ku ji ba daawatukuma nangul nañ leen seen ñaan nee na yonent yàlla Moussa dong moo doon ñaan kéem aamin la féetewoo kon nee na ñi jàng xasida ak ñi koy teew ñoom ñaan rek la dem يكون بالبطيء يعني من يروح المسجد بسبب المكان يعني كان بالبطيء بالذات يعني من المسجد يروح من تاني من سبب جت هاي بيوت أبدا من في يوم كده مسجد يصير متعلق يعني من ديال بالبطيء كان أبدا تمنح مدرني أنا مين كاره nee na ci xasida yi la xamee yuusu te lay dox bu dégg bëccëg te nee na lu baax rek la sëñ bi nee na nit ki moom ñu ràññee la ci lu baax nee na bés bu ne ngay gis kuy sàkkoo siiw ci lu baax rek tasaare ko nee na bu xam na ci te mu nee na nga xam ne nii dañ koy bëgg loolu ñoo koy si jamono bi nee na fexe ba def lu doy waar ngir bëgg si sëñ ci lu baax te di ko sell nee na ko sellalee nee na bu yàggee nga xam nga ci te nee nga siiw daan la xam xam la ci lu baax sëñ bi nee siiw kese rek ba muy sàkku bàyyi la sëñ bi nee na jaam da doon sàkku bàyyi la foofu génn moo si bari taxaw di ko xaar sëñ bi nee na mi ngi ñaan ngeen fi yëkkati seen xasida sëñ Mahmouda nee na ak wax yu am solo wax foto alayım. Senin bir konuna girerek ñu may sëriñ dem ndànk rek nga defee ñu toog